salaam mbokk RFM euh, matin 8h euh, jotna na ci xabar ci wolof ci gàttal ak Ndiogu Dieng ngi lay nuyu. maa fay Babacar. li ci gën a fës attekat bu siiw bi ci àdduna bi Balthazar Garçon di teew tey ca procès buy seen abre moom yàgg daaneel ay dictateur euh, yu si ko si mel ni euh, ndam si yàlla Augustin Pinochet jiite woon fi réewum euh, Chili benn doomu Sénégal di expert en sécurité ca ONU gis coppite yu bari ci boppu police baaxul ci suñu police bi moom Mamadou Diouf ne woon fi commissaire de police xalaat ne njiitu police yi da leen war a bàyyi ñu yàgg ci seeni poste ñaari bakk yu farafeñee pan jamono ji tax ba nit ñi bëri ñu waroon dem ca Gambie daal daal di tàggat tembe coow li ci PDS jigéen yu parti boobu àndandoo doon benn dànk ci kannaaw Aïda Mbodj nee nañu Aïda mooy lañ jàpp ne mooy njiitu groupe parlementaire bu PDS gëstu tey bi di focus bi jëm ci sàkku gi ñuy sàkku xale yu ndaw yi ab ndaje ñu waroon ko ci amal waaye dañ ko mujjee dàq ñu ne nag ci banlieue bi diggante décembre 2013 ak août 2015 fan juróom-ñetti fukk ak ñeent ci xale daal nu yegg si ñoom. ñaareelu fàccu xabaar yi tàggat ak Cheikh Tidiane Diagne dossier bis bi wàllu culture ak euh, Ibrahima Diame feeg ñaar fukki minutes euh, li gën a fës ci yéen a kaay yeeg Mamadou Mouhamed atep Hissène Habré ak lu am solo ci am tey teewaayuk Baltasar Garzón di juge espagnol boo xam ne siiw na lool ñu ne ko dafa ay ci dictateur yi ku ci mel ni Pinochet jiite woon fi Chili moo ko jàppalu woon kon mi ngi ci Ndakaaru dina gont janoog taskatu xibaar yi waaye day xëy nag jàppale ñi nga xam ne ñooy ONG yi seetu àq ak yelleefu doomu aadama te mbirum abré boobu yitteel leen moom nag euh, Carson nekk koo xam ne lu weesu sax mbirum euh, Pinochet doon tamit def ay enquête ñeel doomu Espagne yu jàpp ci kaso bu Guantanamo nga xam te ne Amérique euh, ñoo fa ñoo ko ubbi foofu foofule loolu nag ci jamonoy nag ak euh, George Bush la woon leeral yeeg Jo Balthazar Garzon ci chambre africaine extraordinaire dina dalal xel bu baax baax ñi nga xamante ñoo loru ci régime ki fi nekkoon jiitum réewum Tchad Hissène abré Balthazar garçon mu siiw lool li gën a tax sax mu fës ci àdduna bi mooy moom mi moo fexe ñu teg loxo ci kaw ki nga xamantene moo fi nekkoon Chili Augusto Pinochet ñu bari gisoon ne dictateur la bu sonal lool askanam ci atum 1998 la ñu teg loxo ca Londres Augusto Pinochet gannaaw plainte bi ñu def ca Espagne liñ ko toppe woon mooy génocide terrorisme ak fitnal askanam ca mars 2000 Augusto Pinochet ñu jot ko bàyyi ndax wér-gu-yaramam may ko mu des ca kaso laata mu faatu ci fukki fan ci weeru décembre 2006 donte jamono jooju yoon mu ngi doon wéy di def liggéeyam li merloo woon juge Balthazar Garzon mooy dañu gisoon ne ci régime Pinochet respecté wuñu droit de l'homme ndax ay junni junni ci ay nit dañ ci faatu ñeneen ñi ñu fitna leen wala ñu daw jóge ca réewum Chili Baltasar Garzón fitu juge Espagne boobu ak doxalinam tax na ñi loru ci nguuru seen Habré ñeme ba yóbbu ci yoon ci fi nekkoon seen njiit ci altine bi ñu nar nekk ci wetu Baltasar Garzón Human Rights Watch Amnesty International ci am ndajeek taskatu xibaar yi ci am fàttali juge Espagne boobu jot na gëstu ay dossier yu bari na mbirum narcotrafic international terrorisme ca Espagne dictature bu ay militaire doon def ca Argentine ci atum juge Espagne bobu ubbi am enquête jëmale ko ci doxalinu George Bush njiitum États-Unis gannaaw bu ñeenti prisonnier bàyyi ko ca Espagne porté plainte ndax ñu doon dundee ca Guantanamo te mu gisoon ne denc bi ñu leen denc foofu ca Guantanamo amuñu benn preuve. jo maroon kon ñu fàttali ne moom moom di Balthazar Garzón dina teew kon ca palais de justice bu Ndakaaru tey jii ngir nag euh, fekkee lii di procès seen abré bi wéy ba léegi ñuy déglu nag euh, ba fii kon ñi nga xam te ne ñoo loru ci nguuru ki seen abré euh, waaye tamit seede yi moom ni seen abré nag ñu koy toppee ay ñaawteef mu defoon jamono mu jiite woon réewum Tchad diggante 1982 jàpp 1990 police bu Sénégal am njiit lu bees di commissaire Oumar Mal mi nga xam te ne euh, suba sax lañ ko war a samp jébbal ko langi yi mu wut nag fa nekkoon di Anacim Diouf coppite yi nga xam te ne mi ngi am ci police tàmbali di bëri loolu nag mel na ni neexul euh, ki nga xam te ne mooy Mamadou Diouf moom mu nekk expert certifié en sécurité ci ONU nekkoon fi commissaire de a commissaire Mamadou Diouf ci micro Aminata bi Diaby. ki am sañ-sañu nommé moom moo nommé. ci wàllul boobu wàllu boobu amul discussion biñ ci mën a def. muy Anna muy Omar man xam naa leen euh, bu baax a baax. ay nit ñu xarañ lañu seen li ma ci mën a wax rek mooy euh, bu ñu xool nii nañu xool institution bi. te institution bi pour mu gën a am doole pour mu gën a am professionnalisme. defe naa ne bu ñu doon wut ko xamante dina mën a toog ay diir moo xam ñeenti at la moo xam juróomi at la dina mën a tax

pour fortifier l'institution bi ci Nous dañuy fàtte wax waxo nit ñi mais nous ñu concentré wu ci institution Mamadou Diouf eh, newon commissaire de police nek eh, jamono ji expert en sécurité ci Nations Unies yekati yooyu lay kaddu démb gannaaw bi mu doon am meeting bu mu doon amal ci sañ nek ci commune bu Niakhar eh, diwanu Fatick lolou nak ngir rentrer politique am moom nag mu bok legui ci parti bi di APR jurom benn minute tegu ci huit heures. pour man RFM moy radio bi gëna jégué askan wi. RFM radio bi jaamu sen soxla. lenen ci walu xibaar jëm nak ci ay nit ñi jogé won fi ci Sénégal ngeex dem ci Gambie mu ci nag eh, tagga témbe li ko waral eh, moo ci ne ñaari bat yu fara feñee ñoo daal di pan loolu nag tax ba ñenn ci ñoom sax ci biti la ñu fanaan eh, ñuy sàkku nag mbir moom ñu daal di ci jukk bokk na ci ñoom ñu tagga témbe syndicaliste bi di Mamadou Lamine Thianté ñu déglu ko ci jokkoom ak Joma woon te jafe-jafe yi nga xam ne moom la sénégalais di dund moom moo ngi continuer di wéy parce que en réalité depuis quelques mois euh, presque ñaari fan yu nekk ba bakku farafeñe bi te tey jii ñaari bas yi ñoo paanandoo ba euh, bu ñu julli takkusaan euh, bas yi kenn réparé wu leen parce que am na ay sénégalais yi nga xam ne démb ñoo ngi ñoo ngi euh, fanaan ci poste frontalier Kër Ayib ñu ñëw Farafeñe yaakaar ne dañuy traversé bi 17 heures mënuñoo traversé parce que ñaari bas yëpp ñoo paanandoo te 19 heures fu mu jot gars yi dañuy wàccee seen barrières yi kenn mënul dugg kenn mënul génn Gambie te loolu ma yaakaar ne il faut que suñu njiit yi farlu pour euh, pont yi mun a am ci kaw euh, fleuve Gambie loolu rek mooy mën a tax véritablement euh, sénégalais yi mun a am problème parce que ñaari bac yooyu yëpp dañoo magget moo tax chaque deux jours pratiquement bac yi dañuy panne te tey jii ñaari yëpp ñoo paanandoo ci euh, journée bi yëpp donc loolu lu lu jafe la euh, te lu métti la nga xam ne moom la euh, sénégalais di jànkonteel il faudrait que véritablement état sénégalais jóg Mamadou Lamine Diante di syndicaliste kon bokk ci ñoo ñoo ñooñu tàggatembe ca far feñe ñeneen ñoo xam te ne ñi ngi dundi jafe-jafe di askanu nit nekk ca diwaanu Ndar ñoom nag seen jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox jàkkum courant ak tamit ay tari di loo xam te nag bëgg nañu nguur gi dimbali leen ci tawat yooyu sax yegge nañ ko ministre d'état Mbaye Ndiaye gannaaw ba mu fa demee woon nag démb pour RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM wax lu soxal wàllum politique ak caaw li wéy ci biir PDS gannaaw bi ñuy taxawal seen groupe parlementaire ci assemblée nationale. ci coow li dox nag diggante moo Modou Diagne Fada ak Aïda Mbodj jigéen ñi PDS yi ñoom nag euh, takku nañu ba dëgër ci gannaaw Aïda Mbodj ne moom lañ jàpp ne mooy njiitu groupe parlementaire bi ci assemblée nationale nee na lii yëpp du dara lu may pexe yoo xam te ne Macky Sall moo ko tëral ngir daal di faagaagal seen parti yi démb la euh, jigéen yu PDS yi doon amal ab ndaje ci tawaayu Mamadou Fall. sol ay yu xonq ñoom ñëpp bootu ci ginnaaw Aïda Mbodj jigéenu libéral yi ñoom wane nañu seen i naxar nee nañu nag.

moom la gëndal ànd ak ku nekk naan damay gañe bu boobaa fu ma koy tiitaroo. Aïda Mbodj jàpp ni lii lépp président Macky Sall di def du lenn lu dul diversion. muy pétition. président bi dooroon doomi Ablaye Wade. maa déranger woon. dérangement ba boobu nag moo tax ñu bëgg ñu andil diversion. formation su yematul ci signé dem waaye dem ci initié mu authentifié nga wàññi daal di jël pétition yóbbu Nations Unies dem di réclamer résolution résolution ñëw nga ragal jox médiateur de la république mu jël ko jox président de la république droit de l'homme yi dugg ci ah ku lakk mburu tudd dëkk na livre bi nag maa ko yëkkati ñu ni nagal ñu dem ca groupe parlementaire ba daal di sa carte gi su ko defee nag ñu divertir leen. jigéenu libéral yi ñoom tabb nañu ay Mbodj ñi mooy jiite kon seen groupe parlementaire boobu di groupe parlementaire libéral ak démocrate yokk ci ne bu fekkee Macky Sall moom am nay doole tabb kii di Moustapha Diakhaté mu doon président bu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Wade mën na def li ni mel ci PDS. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi RFM Radio bi jaamu seen soxla ñu yegseeg yéen léegi ci focus bi di gëstu bi tey nag mu jëm ci sàkku gi ñuy sàkku euh, xale euh, ndaw yu jigéen yi sabab li di ndaje boo xam te ne ONG Sagit uh, psychologue bi Serigne Mon Mbay jiite ko dañ ko waroon amal euh, tey ji diirub ñaari fan waaye ndaje bi sax xaalar ba lay mujjee doon ndaje boobu nag liñ ciy waxtaane mooy taskatu xibaar yi tàggat leen ba nga xam te ni ni waxee ak ci mbir yu ni mel dina nekk loo xam te ne la yooyu luy dëppook li ñuy soxla la ah, ci banlieue bi nag gis nañ daal ñu bëri ci xale jigéen daal ñu leen di sàkku buñ sukkandikoo sax ci ñi yor ah, boutique des droits de l'homme bu AGS ca Bikin juróom ah, ñett fukk ak ñeenti xale jigéen ñu ndaw daal na leen di sàkku diggante décembre 2013 ak août 2015 mu nekk lu doy waar sunu reporter Salif Sow daje ci ay xale tout temps yoo xam te ne jot nañoo yegg ci ñoom ñu juróomi at képp la am àgg nañu ci moom sàkk ko. benn bis mu ñëw mu ñëw léegi nag ma ko li may def dinaa ko mës a wax sama yaay léegi nag ci la saa bu ñëwee indaale paaka ne ko boo ko waxee sa yaay dama lay rey. kii kii la koy def ñaata la kooku benn temps. ginaaw lu ngeen bokk pap ginaaw ki keneen ci di wax fukki at ak ñaar la am moom tamit dafa am ku ko sàkku dëkkandoo moo def lu nu mel bañ ko sàkkoo xale bi dafa jógaaleeg ëmb doomam bu am juróom benn weer ca loxo ya mu tëyee mu ngi dikkat ci mbir mi jaar yoon su nee la man daal su ma daan jëlee ay sama kër tante bi rek dinaa ma damaa bëgg ñu bokk mbuus jëf ji du amit daan ba nii bokk amut daan ndax njabootu xale bu jigéen bi moo bàyyi noona loolu xale bu jigéen bi moo ñu ko wax moom mi jàpp ne ñi ko jege dañ ko wor li ci ëpp nag ñaare ñi nga nga xamante ni ñooy sàkku waate dañuy jege ku ñuy def lu ni mel ki nga xamante ni moo jiite boutique de droit bu Pikine moom moo ñu ko wax ci juróom ñett fukk ak ñeent xale yi nga xamante ni àgg nañu ci ñoom ci lu matul ñaari at fii fukk yi ak juróom benn dañoo jógaale ëmb te kenn si ñoom amu ci fukki at ak juróom ñett ci lim boobu ba léegi ñeent ñi ñu leen jege ñoo leen ko def ñaar ña seen jur bu góor a àgg ci ñoom ñi nga xamante ni ñoom la ñuy sàkku fii ci lu leen neexut seen i at ñett la tàmbalee ñetti at ba fanweeri ak loolu Ami Sakho mu bokk ci AJS moo ñu ko wax Salif Sow Pikine ngir rajo Futur Media. Salif Sow euh, mbir mu ni mel nag euh, tax kon ba a euh, ñii di waa ONG CGID di amal ndaje boobu liñ ci jublu mooy fexe daal ba taskatu xibaar yi ba a jàppee mbir yooyu nekk ay fait divers maanaam loo xam dañ koy ñàkkal fayda waaye ñoo xam ne mbir mu garaaw la te war nañ cee jug ñuy déglu ki nga xam te ni moom la ñu dénk mbirum accompagnement psychosocial ñi nga xam te ne dañu yegg seen kaw ci ONG CGID Ndeye Soxna Ndiaye Maroon ci jokkoom ak Ndati avons constaté que les euh, journalistes les faits d'abus sexuels ni pas koy faral di journal Ça xaw poser tuuti problème pose poser problèmes surtout suñu victime ak tel famille parce que par exemple article a da ngay jël bi nga ko quartier événement bi yow nekk beneen métit buy ñëw dolleeku ci xale bi ak ci famille parce que boo bindee xale bi nga xam te ne mu ngi dëkk par exemple parcelle religieux waaye bind quartier bind koñam bind lépp mu dëkkal bu ñu liiree xam ni ah kii kat moom la lii daal te loolu dafay dafay gën a yokk métit bi ñoom ci seen bopp dañuy gën a am métit nan la ñuy dundee problème dèjà rek bu ñu nee rek ku nekk xam nga ni yooyu problème mu dal sa doom mu dal sa jarbaat mu dal sa mag wala sa rek ñëpp xam nañu problème médiatisation bu ñëw dooleeku ci day gën a metti ak manière bi ñu koy médiatiser aussi day dey tax affaire bi day gën a metti ci famille yi day tax day gën a metti ci xale. dañoo yaakaar ne buñ leen woowee dajale leen ñu wan leen ay témoignage yu xale yoo xamante ni dañoo nekk victime d'abus sexuel ak seen parents yi. ñoom xale yi toog di wax ñoom métit bi ñuy jànkonteel parents yi ñoom tam di toog di wax métit bi ñuy jànkonteel peut-être loolu dina créer benn changement d'attitude ci journaliste parce que xam naa ne sax jàng nañ jàng nañ nañ la ñuy ak yëpp mais ñun suñu gis-gis mooy dafa am lu def xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ tànn Cheikh Tidiane ñu lay. maa ngi lay fay Alaaji Njóobu Jéen dañu koy dal di door rek wàllu football ak Linguère de Saint-Louis di club ligue en sénégalaise ñoom nag seen mbébét mooy fexe ba bokk ci équipe yi nga xam te ñoom la ñuy lim gannaaw bu saison bi jeexee ñu nar kaa doon nag juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñoom nag ci wàccaay googu sax am nañu ab njiit lu bees moo di docteur Amadou Dia. docteur Amadou Dia googu nag euh, moom wax na daal lan mooy mbébétam euh, gannaaw ba ñu ko tabee ci assemblée générale bi nga xam te ñu ngi ko doon amal ni ki samedi gi foofu la ca Ndar Géej ñu déglu ko ci téléphone Malal Junior Diagne. waaw sant yu njëkk mooy defar équipe bu bu mag ndax xam nga li ngay dafa nekk équipe boo xam ni dañ koy boole ci équipe yu gën mag ci équipe bu Sénégal te juumuñu ndax boo xoolee championnat euh, pro bi mu démarré li ngeen moo ko jëkk jël te jaar jaaram aussi wane nañu li ngeen équipe bu mag la mag boo ko jëlee teg ci place bu mag rek la mën a am place bu mag nag pour mu am ko il faut que mu am ay joueurs yu ko mën donc loolu liggéey bi jiitu mooy dugg ci organisation boobu fexe ba joueur liggéey bi nga xam ni généralement saison bu nekk entraîneur yi dirigeants yi dañuy recommencer à zéro parce que li gën a baax ci équipe bi doon génn ci dem ci wuti yeneen ay club te cette bi booy xool bi ñu koy démarrer presque nekk lañ koy démarrer booy xool année bi passé Linguère dem na bay bi amul victoire parce que xale yi jëloon ci jële ci nawetaan yi ñuy soog a ñëw ñoo joué fo joué ko ba ñuy ba ba ñuy am ba ba ñuy adhérer mais fekk na boobu championnat bi sore na. su mel noonu daal lu ñu bëgg arrêté te loolu la koy arrêté mooy d'abord

plus une bonne organisation aussi bien technique administrative et stratégique du am bel problème. bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee El Hadj Ndiogou Diène wàllum ak euh, demi-finale euh, zone 1 bu ODCAV bu euh, Dakar jàppale nag tey jii lañ koy daal di yëgal gi ñaari demi-finale 18h30 diggante xandaalu bu Rebeuss lay doon ak Santhiaba bu Médina. match googu la nag nekk amal la ci stade démb jup la ko jiitu eh, démb équipe eh, bu nga xamanteni mom mo ñëk qualifié eh, ci ci final modi di ngaraf nak mom dafa dal di am dam digënté mak ñinga xamanteni dal ño di wa ñinga xam dañu di wa kusum gannaaw bañ doon amal sen demi final bu jëk démb ci stade démb jub série de tiro but nag la ko wa ngaraf dal di gagné ci temps réglementaire ñaari équipe yi dañu defoon match nul ku ci nekk dal di duggal sa marom ben but ñu dal ci bitiro championnat bu France France seen fukkeelu bëccëg dal ni ki jeexal ni ki démb ñu fété ci bopp raw gàddu yi moo Paris Saint-Germain Angers ak Caen Paris Saint-Germain nak euh, mom euh, fa mu taxaw dafa dëggal nak fi mu toll nii rawee nag lu tolloo ko juróom-ñaari poñ euh, ñi di waa Angers fété ci ñaari place bi démb nak kan na buñu doon jeexal li nga xam ne moo di fukkeelu bi Olympique de Marseille dafa daal di match nul ci dëkkam diggante mag Lorient 1-1 Bordeaux ak Montpellier 0-0 lañu dal def Nice daal di fekk Rennes ci dëkkam daal di ko daan ñeenti bal ci euh, benn ca Angleterre foofu lañ euh, jàppale ni démb lañu daal di jeexal seen juróom ñentelu bëccëg euh, jongante bi nga xam te daal bu bàyyi xel moo di diggante Newcastle ak Norwich waa Newcastle ñoo leen daal di dóor 6-2. waaye teewul ba tey Newcastle ñu ngi ci zone de relégation bi maanaam équipe nga xam te ni championnat bi yemoon dañu wàcc ci wàllu deuxième division foofu la ca Angleterre Manchester City moom moo féetee ci bopp raw gàddu gi ñaareelu place bi Arsenal moo fa daal di ne ñetteelu place bi ñii di Manchester United ñetteelu place bi nag Sam United bu Diafra Sakho ak Cheikhou Kouyaté ñoom ñoo fa daal di féete ci Italie ka féete ci bopp raw gàddu gi di Fiorentina bu Bakar Xuma ñoom nag démb daal nañu am seen ñaareelu défaite ci choc bu doxoon seen diggante ak Naples napp nag moo leen daal di daan ñaari bal ci ben geneen choc digënté Inter de Milan la woon ak Juventus de Turin match nul 0-0 la ñu def Inter de Milan mo mo fété ci ñetteelu place ben benn poñ dox ci diggante mag Fiorentina fété ci bopp raw gàddu gi euh, ki di équipe championne en titre di Juventus de Turin mom nak fi toll ni ñu ngi ci digg classement bi. ñu dal di ko jeexaleeg championnat Espagne ak Allemagne Espagne jàppale ñu fofu ñu féetee ci bopp raw gàddu gi ñett lañu di Real Madrid Celta Vigo ak FC Barcelone ku ci nekk si ñett équipe yooyu ma jot a lim am nga lu tolloog fukki pañ ak juróom-ñett euh, ca Allemagne foofu nag euh, Bayern Munich ba tey moom moo fay lëmbee ànd ceeg moom waaye euh, jàpp leen Dortmund googule poñ yu dox ci diggante ak Bayern Munich féetee ci bopp raw gàddu gi. toll na si juróom-ñaari poñ loolu di firndeel ni Bayern Munich bokk na ci équipe wala bokk moo di équipe mu gën a ëpp doole jamono gi foofule ca championnat bu Allemagne Alain Ndiogou Diène li ma fa gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. gaaw ci xibaar yu wóor. way ci xibaar yaa ak euh, dossier bi tey di altine mu jëm ci wàllu culture di aada ak cosaan tey nag ñuy waxtaanee wàllu culture ca Kaolack foofu nag artistes yi am nañuy jafe-jafe ngir mën a wane dëgg seenu talent ñu déglu ci dossier yi Ibrahima Diame. cosaan ak aada ay ponk la yu nguur gi jël jox leen kon mairie ak conseil départementaux yi pour ñu doxal leen waaye dafa mel ni kon dañ leen jël def leen ci ndaare liste bi file ci commune bu Kaolack artistes yi li ñu gën a jooytu moo di ñàkkum infrastructure culturelle Alassane Ba artiste comédien la bokk ci troupe bi ñuy ak atelier théâtre euh, imaginé. wa jafé jafé bu ñu njëkk am moom moy salle salle bu ñu répété ak salle bu ñu defee production spectacle da xam nga théâtre bokut ak euh, yeneen yi dafa laaj salle bu mi buñ koy défé laaj euh, moyen yuñ koy défé té loolu boy xol alliance mo si am as new té alliance bu fekkenté ni ci ci nawet bi la doon ko mëna a ndax té salle bi dafa ubbeeku beneen salle bi fi tëju moom moy salle centre culturel bi te acoustique bi du la permettre nga mëna a def théâtre comme ni ñu ko bëggee salle bi dafa am écho bu bëri doo fa mën a exercice théâtre kon li ñuy njëkk a jooy moom mooy salle ak lieu yi ñuy répété. salle El Hadj Abdourahmane Ndiaye ñu gën ko xam ci turu Kabila nee na du ñu manqué li fa amul kay moo di ñàkkum jumtukaay maanaam euh, ñàkkum équipement. ci espace sax kaw la jooyul lu bari mais dañoo am ay bërëb yoo xam ne nii euh, duñ ko équipé wul. ça ne répond pas à l'art contemporain li nga xam ne moom loolu art méngool jamono ji ndaxte boo demee bërëb yooyu duñ ko toppatoo day yàqu wala du am personnel fa ne ci ñàkk dox lu mel ni centre culturel lu mel ni par exemple boo demee SADEPS lu weesu alliance ak kër de Kaolack bi nga xam ne vraiment ci un peu privé donc yooyu dañuy soxe bu baax waxatuma nag foyer yi nga xam ne quartier euh, maire bi daf ko tabax ci quartier yi mu war a nourrir euh, l'art populiste foofu moom kenn tanda la bunti yàqu ya, na amatul gaañi ya, amatul dara donc loolu tax na mu soxla kabila jàpp ni ay talent bëri na kaolack waaye mu mel ni aar bi jëruñu leen ndax gisunu ku leen eh, jàppale ñii sur le plan culturel kaolack dafa bëri ay tëggkat bëri bëri théâtre kat bëri kat, bëri ay woykat lépp rafet na bu ñu organiser manifestation culturelle day am mobilisation mais boo gasee ba ci biir loolu jëruñul ñi koy def comme ni ngui koy waxee ci tubaab rek ça nourrit pas son homme moo day soxé ak ñuy gëna xaar kon pour mo duggal ci loxom moo di collectivité locale yi Alassane Ba gis né lu leen war la. xam nga kuy def théâtre métier boo mun a yëngu yëpp da ngay soxla li ñuy naan subvention ndimbal té xam nañu culture bokku na ci domaine euh, ci compétence transférée kon lu ci melni conseil départemental ak mairie euh, war nañ ci japp bu baax wax dimbalé artiste yi jox leen ay subvention mairie bi mom lañu ñu ben patch ci walu ci sanak ada way nak bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Ndaw quatrième adjoint au maire doon itam chargé de communication am na yu nga xamné mairie bu Kaolack moo ngi koy def comme ay jéego. koy ren dañu demander les secteurs culturels que maire demande la ñuy proposer que agenda culturel pour que en plus des subventions ñen leen di jox ñom agenda culturel mais les foyers des jeunes yu nekk si commune bi commune bee ko gérer amna ci si xamné ren dans le budget participatif dinañ def réflexion bi mais suñu option mooy fexe ba quelque de ces foyers ñu rendre ko fonctionnel ba muñ dafa def seen répétition. mairie bu Kaolack di fàttalikoon nguur gi liggéey yim fi defoon bi ñuy amal conseil des ministres décentralisé mu fexe def ko ndaxte kat ci weeru décembre bi ñu dégmal lañ fi war a amal festival des arts et de la culture Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futur.